N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. di leen masawu coono di gërëm itam ñi waral daje bi xam na tudd nañu femme dévouée pour la cause zijn kapitein da ka ci sen kanam an bokkam yu baax yi mu mel ni itam dafa am lu nga xam ni njaboot moo ko moom ne sar sañ nga ni duma bëgg sargal sama kilifa waaye yooyu yëpp dafa am fu mu tàmbali ndax ki ñu njëkk sargal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa te sargal biñ ko sargal mooy bi mu ganesee àdduna xam nga kuy gane ganesee àdduna ñu lay sargal la ca des jaru la wax waaw mu mel ni sargal ba itam Seydil Hadj Malick moo ñu tëli تنبهوا أن النور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطهر الخيم ها أن عطروا بخروا خير البخور وأفرشوا السجادات تكريما على القدم موضوع بنيكو نتلي haut-parleur yi doon diffuser ci asamaan si waaw di diffuser nit ñi di ko dégg te xamuñu fu mu jóge fekk booba góor gaa ngi soog a gane àdduna mu ne ku doon nelaw na nga yeewu waxul Muhammad tuddul Muhammad nuural xat mi la wax waaw ah. kon nag fa la yëf yee tëje ah. wane ni ki yàlla mottalee lépp gane si na àdduna ci guddi googu waaw ah. kon ku doon nelaw bay boo nga yeewu ah moo tax tant yi ñuy wax falak njëkk a commencé xat xalla fi xaybatin min adharil xiyami moo tax bis bu ne fii ñu naan ah ca xayma ba wala ca nangam nangam fekk ci yonent bi la tàmbalee waaw waaw ndax yonent bi juddowul ci ay néeg waaw ci xayma fa la gane àdduna waaw donc ñu sargal ko ba ñu ca jógee itam ka ca topp mooy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane moom it ak ña ko sargal waaye sargal ba itam yonent bi moo ko ko defal waaye ki ñu permettre pour ñu am récit bi mooy turandoom Cheikh Ahmed Tijani Maktoum waaw hada rasulullah yowma nuzulihi mutaqallidan bilxaqi walburhani mutabassiman faraxan bisafi malaikin basatu ilayka akufahum bitafani ha mooy keroog ba cheikh demeek yonent bi te yonent bi summi ndombo yee jox ko waaw pour mu donn lépp waaw moo keroog la ko wax ni ko jarul ngay sonnati ci kenn ndax ana di wa anta waladi wa cheikhuka al abarru kulla musnadi waaw fekk boobu cheikh a ngi wër rek pour di seet ku mu collaboreel yonent bi ni ko jaru ko parce que ku fi mët dara new fi waaw kon nag bàyyi ma rek man ma féetewoo la waaw fa tabarakallahu Maodo ba tey di ñu ko li ci fekke fakihatu tulab waaw ah ba cheikh wéyee cheikh alxaaji omar il fouti سرين بابكر موت دو سرقلبا وعاني بشوق لما فيه فانية تحيرت من لقيا الذي كان هاديا سرين بابا فك مفابر صح وي بي مدفع وي بي بمجيخ جلا فابر بدين واه ndax sargal bi mu sargal cheikh alhaj omar el fouti wa ah mawdo ñew mom فمالكنا الماضي هنا مثل مالك هنالك في دين وعلم تصدر ألا أن هذا النائب اليوم نجله كثاني رسول الله fil ghaari wal naaru gànnaar ba mu ne imam malik bi ngay dégg bu la rëccee jàppal ci Maodo waaw ndax lu newoon ca malik bu jëkk ba mu ngi ci malik bi waaw sargal Maodo ci façon bu yéeme waaw xasida ya bare na sax waaw ah sëriñ Babacar ñëw waaw dem ba tey waa gànnaar di ko sargal waaw ay ibn alxaaj ok ay ibn alxaaj ma laka min mithaali waaw laqad xusta alxamida min alxisaali تناجلك الكرام وعن قريب تقدمك الشيوخ من الرجال كنك سموت على جحجحة البرايا kama alatil itaqu ala al biraali waaw ndeysaan façon yooyu ku nekk ak façon ba nga sargale waaw ba ca sunu mbokk silmaxa ma ko ngeen ak la nga am si tu ne connais pas Mbaye Sy demande-le moi il est beau il est gentil il donne de l'argent waaw fa yëpp daje na ah mu des nag xaw ma ndax maam Cheikh dina ko nangu wala déet mu des boog sama góor gi waaw kay waaw ah. waaw moom sargalam maam El Hadji Abdoul Aziz Sy bii moo ko wax waaw أي شيخ التجاني آه. فكن رحيما لسادات لهم أنت الطبيب لولو آه. نيت منوكو بازي موخ سيدنا الشيخ نيكو ماك نيفي سانغ يفي ني دي لين ياكار كو في فيبر رك يا فا سوري آه. كون نك نغا يك ني اي دكتور ماك نيفي ياب ko bëgg mu wér rek dana wér waaw tabarakallahu tabaarakallahu yooyu moom lañ fiy fekk mu mel ni kon nag ñoom résultat yi ñu am ñun amuñu sax ceer bi waaw fa tabaarakallahu xam na maam Cheikh moom nanguwul waaw mu ngi yëngal bopp rek waaw ah waaw ma ci mer. ma ci moom day dafay daanu rek ndeysaan dafay daanu. waaye li mu wax benn soxna bu jigéen kilifa waaw ah. ah, am ci tariqa bu mu bokk wéet nag yaay mii wax ko ko ni ko dafa am lu kenn sañu wax ca kaw waaye itam ah ku yóbbu sant yàlla waaw ko ndax li fi mag ñi doon sonne yëpp dafa mel ni mu ngi ko gàddu di waaw wax na fa wax yoo xam ni sax man dama xaw jàpp ni dafa tàng tuuti waaw ah waaye loolu yëpp comme ni ñu ko waxe léegi lu neex neex neex neex baatam ba ca ndar moomu ko dàqal mooy li ngeen fi tudd waaw ñaanam yooyule ci teral nga ma yàlla na la yàlla teral sagal nga ma yàlla na la yàlla sagal ah ma defe ni kon lu ñuy wutati ci àdduna ak àllaaxira ñaan googu mën na ko yenu waaw ci lu ma wóor sax ngi fàttaliku Baye Omar Samb bi yal na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp mu ni ma dama ñëw bés xëy si di ko seet si mu ànd ak xaal mu ni ko góor gi lan la mu ni ko dama sonn ndax ca Sénat ba la jóge waaw ah. waaye tey sunu débat yëpp mooy ku may wuutu waaw ñu di ma laaj nag ñu di ma laaj man ndax am na candidat bu may proposé Baye Omar Samba ma ko nettali de te sañu ko fen waaw nee na góor gi ni ko ah, ñu ni ko ndax am nga candidat mu leen am naa ko kay ñu ni ko nu mututu tudd waaw mu tudd tur waaw mu tur ndeysaan yooyu doy na sant yàlla yi ci des yëpp nag ay comédie rekk la waaw kon nag guddi gu mel nii bu amee fa tabaarakallaahu njaboot yi def ko ngir yàlla ak sunu jëmm ñi fi teew ñépp ay sang lañu waaye itam ñu am ay gan xalifa Babacar Sall mook ñun ñoo nekk na woon daaw ca Grand Théâtre ah mu ànd ak sang yi sur le plan politique Ce beaucoup, cher yum and ak indilen. indi leen mak nyom nyom ñoom coalition waaw ñoo bokk Yewwi Askan Wi waaw waay tàccu leen ko waay ah kon nag gis ngeen yii xew nii yëpp jëmul fenn yëf yaa nga ca kanam waaw yéen ñëpp takku leen pare seen bopp bu élection ñëwee kenn ku ne na la fa fajar waaw te kenn ku ne teel la xam fan la sa bureau de vote nekk ndax am na ñu nga xam ni yàlla dina leen déjjati fa ñu nekk benn ñu dem bàmmeel ba ñu dem kaso waaw duma leen ko wax maam Cheikh wax na leen fii ni joxeel ndigal rek ñu def réew mi dóom mën na nekk man xam naa ni mën na nekk waaw ndax turandoom bàyyi na fi lu ne waaw waaye itam ñoo moom réew mi keneen moomu ko daf ko waxee noonu rek waaw ñoom ñii dama am yëg-yëg ci seen mbir yàgg naa di yëngu ci politik xëy na am na ñu ma daan bokkal di leen jàppale waaye lii ma nekk tey nag moo ma gën a ñor waaw waaw ma wax Cheikh Ahmed Tijani bi nañu jël sunu parti pur ñu dugal ko ci biir coalition bi waaw xam na nag ñoom ñu ngay tëb di dal parce que man jógaguma waaw sama njaboot dañu may sargal ku ñuy sargal nag doo xeex waaw

ma ni leen waaw ñiy dem Makka te du ñu ñibbi si nag waaw Makka la dee te pourtant dañ doon aji ngir yàlla kon nag ku nangu loolu foofu war ko nangu beneen parce que principe principe rek la yàlla moom diine mais yàlla moom politique waaw tax na kon nag ku ne di garaawal fii ku ne di dramatiser am nañu chance bi ma fekkee ma xaw a occupé tuuti waaw waaye beneen a ngi ñëw bu booba ñun ñëpp ñu mobiliser wu incha allah waaw sunu mbokk police yi nag ak gendarme yi ak euh, armée bi ñoom laa yërëm ndax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ba mu tolloo fu mel nii ak Senghor dafa wax Senghor ni ko man invité naa la duel ca place de l'indépendance parce que ñii ngay jël di leen utiliser ay borom mi njaboot lañu te réew mi lañ leen aarloo kon bu dee conflit boo am bëgg leen utiliser kooku jaarul yoon mën ne ko kon nañu dem ñu duwel mag yow rek comme ñoo sonal nit ñi boo ma reyee noppalu bu bu bu ma la reyee noppalu waaw telle sorte que xam lu xew baax na dafa bari mag ñu ngi ci bàmmeel sax waaw léeg ñu di la nettali diw lu tax mu mel nii mu mel ak lu tax xolam di tàng ak lu tax mu bëgg ku ne mu gañ la di ma nettali ba sendai. ma seen ndey bam dan bam dan yalwan daan Wow. ca Fatick ak la dan xew ca yalwan ja waaw waaw kon nak jog jotagul waaw jog jotagul dafa reception gamu c'était la première fois mu ñëw ci réception gàmmu Tiwaawan mu jaar ci kër maam Abdou ba mu fa jógee ci réception ba mu ñëw ci kër Serigne Babacar comme dafa amoon conseiller boo xam ne sur le plan religieux mën naa tudd turam sax waaye par respect du ma tudd tur bi.

naka la ñëw ba toog naka la toog tuuti rek mbokk moomu jóge rek jëm ci micro bi sëñ Cheikh jaar ci turam ne ko foo jëm moo ne ko damay jël kàddu sëñ Cheikh ni ko fii mag Senghor rek ñoo fiy wax mu daldi di mer ndax booba rajo yeeg télévision yëpp moom mooy joxe ndigal mu ñëw ci taabal bi waa RTS ne doon def en direct mun leen couper leen en direct bu Cheikh Tidiane ñu couper ko mu daal di mer foofu daat ni comme nii la nag ñaari gàmmu dootu fi am benn gàmmu moo fi am te kër El Hadji Abdou lañ koy def sëñ Cheikh xool koora ni ko xaaral ban fekk la fi xaaral ba déwén fekk la fi waaye juróom benn weer sax amatu ko fa waaw ñu baleye ko loolu mooy tax xëy na yu bari dafa am luy rus rek bi ci des mooy ñoom armée beeg gendarme yeeg police yeeg seeni doom a ci dayre bi loolooy tax doo doo bëgg ñu dugg ci yenn yi ndax mag ñi bàyyi nañ fi luñu ñu neutraliser force yi Serigne Cheikh Tijani wax na leen ko ci ñetti fanu Tiwaawan ni leen keroog bisu 16 février bu bal takkoon ci Ndakaaru rekk ma bàyyi yàlla ak yonent bi loolu mu ngi fi ba tey ci Cheikh El Hadj Omar il Fouti ba tax na kon nak lu ko jaragul daf ko jaragul rek wa te li xale yi wax legi wax nañu deug ñun fi mo ñu gëna jik wa parce que fu ñu defee sunu cérémonie barke dana fa wàcc que am na ñu nga xam ni yàlla naratul ñu am barke moo tax mag ñi ñoo ñoo ñu dégagé ñu jógee foofu waaw fii lew ñu dom en 48 huit heures ñu réglé li ñuy réglé yëpp waaw ko defee ñoom xalifa mi ñëw ànd ak ñu baax ñi mu àndal yëpp rawatina soxna ay dem mbooj ndax may itam bu dul fayde am na loo xam ne duma ko jaral dama gis ñu invité ko ci benn débat moom soxna ay dëmbooj mbooj bile waa TFM ñoo doon def débat bi mel ne kuy jéem a wut nu ñuy naxaateeg yu kenn xamul di wax ay poste premier ministre ak yu kenn xamul waaye mu tontu leen tontu bu am solo ni leen sunu opposition bi beneen opposition la waaw kon nag baye boo ngeen teey rek waaw mu nit sunu doomu sang boobule dafa wax ca Tiwaawan ni am na ñoo xam ne ku mënula ànd ak ñoom ba boo seetaat sa bopp waaw waaw wa tabaarakallahu wax fa wax yu am solo ma suivre débat ba ba mu jeex waaw ba tax na loolu nag mooy li ñu préoccupé ñun ah léeg ñu def seen comédie nag ne xam nga ni Sonko bi muy jóge këram ni dafay julle ji te ñoom ñuy lank ni du dem ñett garde du corps la àndal hmm? li ñu wane ci écran bi mooy ñaari garde du corps la àndal may laaj ndax Macky Sall fitam may na ko muy génn dem juma pour ànd ak ñaari garde du corps jamais waaw ah, kon nag ku dul sa morom am na façon bu la koy wane waaw defee kon nag bum ñu tooñ nag waaw eh? mu ngi jéem a cokkaas rekk waaye ki nekk ci gannaawam laa xam ndax kenn poussé wu ko ku dul Abdou te Serigne Cheikh Tidiane Sy moo ma waxoon ni ma Moustapha ma ni ko la béykat mu ni ma gis nga Abdou Diouf ma ni ko am ah, mu ni ma bu ko àdduna yàggi mukk ba nga wóolu ko mu ne ma bis bu mënee fayu ci sa kaw dina fayu yàlla wan ma ko fan yi événement yi ñëwagul ci biir semaine bi maa ngi koy nettali maam Cheikh ma fekk ko ci benn daje ci Tiwaawan ñëw di ko jox loxo mu lànk ni du ma nuyu ci laa xamee ni am na lu xew kon la ma góor gi waxoon ma nga déglu yu bare parce mag ñi dafa am façon buñ lay wane waaw ma soxla góor gi ñëw ci kër gi mu nekk fii ibre Njaay daan toog nga xam ni ku soxla góor gi moom ngay wax yóbbante bi mu dem wax ko ma ñëw foofa fekk fa Issa Sall kon xam nga loolu am na lu muy junj mais affaire bi nekkul foofu bi ma ñëwee ba yem ci moom jaaxle lu muy wut foofu ma ñëw ni waa man góor gi laa soxla woon mais kenn tontuwu mais ma génn ci couloiram bi nekk foofu fekk fa benn sarcophage bu mel ni bi ñuy denc pharaon yi mani sarcophage bi lu muy wut fii ñu ni ma kooru Serigne Cheikh lañ ci denc ku am dégg rek booy boo nga déglu waaw kooru Serigne Cheikh la denc ci sarcophage bi mani Serigne Cheikh ci biir sarcophage noonu ma gis benn nit bu ma xam fii ci Tiwaawan mu ñëw rek ubbi sarcophage bi ci boppam rek génne kooru Serigne Cheikh naq ko ci biir ndox ma xam ni wax la moo tax seen événement yi yëpp sutura yàlla yàlla du leen seetaan incha allah waaw nañ taxaw rek ngeen nekk ci terrain politique bi ñun ñu féete leen ci daara ji waaw bu ko defee kon nag loolu ñu wax njaboot gi rekk moo ci nekk ba Sénégal de Sénégal ba léegi mësuma bokk ci benn coalition waaw daan naa jàppale ay nit nag te fekk sax ci lay mais jàppale bi passé mais je yoon nag jël responsabilité jël sama parti ñu dem dugg ci ñoom ànd ak ñoom xeex bi waaw bu ko kon bi ñu ni man ni dëkk ba dafa yëngu te ñoom itam comme ñu ngi leen di wut moo sañoon rek ñu jéggal leen ñu continuer seen activité ñun ñu féete leen foofa incha allah moo tax bi ma yegsee léegi nii mam Cheikh ni ma ñëwal nga nuyu ñoom Khalifa Sall ma ne ko ban Khalifa Sall <laughs> mënuma ñu ngi nii ma ne ko ñoom ma jéggaloon leen bu ma sañoon duñu sax bougé ndax yi ya nekk Dakar waaye ma xam ni ñoom it ak seen yéene kër jëmb lañu ñu bëggoon a ñëw waaye dafa tase keroog décision yiñ doon jël mu concerné coalition bi rek ci guddi googu lañ ko jël waaw ñoom ñu waroon xëy nag def réunion pour seet nag ban décision lañuy ñuy mën a jël pour def fas li xew ba tax na kon nag ñu ngi leen di dalal di leen sant ñoom ñu ngi may sant sànq waaye ku nekk yaay sant ka ca des waaw man li may def defuma ko pour kenn pour sama bopp moo tax ma di ko def ndax ñoom maam Cheikh ñi ñoo ko moom waaw bari na sax bi ma ñëwee Tiwaawan ñu may yóbbante ni ma sëriñ Moustapha na nga taxaw loo mën ci maam Cheikh ndax jëmuñu ci yow ci moom lañu jëm man leen kon di dañuy xaru waaw ni moom dama wax turandoom fële laa ko teg waaye bala ñoo jot ci moom dinañ am lu leen doy de waa incha allahu ba tax na loolu turandoom waxoon rek moom la ñuy fayewaat bor bi waaw ñoom ñi ñoo ñu gënal sunu dund waaw waaw kon nag lu mu jar ni mu leen ko jarale noonu lañu ko jarale ñoom soxna Fatima ngi nii di jigéenam ak yaay mi ak ñoom soxna Umu ak ñoom soxna aji ak ñoom docteur ak soxna ndey kumba bi am ngant ñoom ñëpp li mu wax dañu yóbbaale ñi nekk fi yëpp waaw mu mel kon nag sunu bokk yu baax yi fi toog ni Hadj Mansour Diop bu Sen TV waaw ak Pape Alé Niang tabaarakallaahu ah émission bi mu mujjee def li mu doon poser comme question ñun lu ñuy doyee arena waaw lu koy doyee te wax na dëgg waaw xëy na moom course ba sax la doon propose waaye course ba comme góor gi moom moo ko tànnoon te guddi yonent bi la ko doon doyee bëgguma ñu rax kook leneen waaw loo tax mu ne njaboot gi rek nañu dem ca kër gi waaw lu ñu fa bëgg a def mën nañ ko fa def waaw wax maam mi ni ko jëlal say disposition nga seet ñi ngay collaborer rek man maa ngi toog di leen déglu waaw mu mel ni kon nag nit ku la sant yow it nga sant ko ndax taxawaay bi ni ko xalifa waxee léegi ah mais ñun looloo ñu war waaw ndax mag ñi dafa am luñ lay wan ak luñ lay wax waaw Sénégal gii fii ñu jëm nii bu delluwaatee ci ay loxo ya mu newoon mag ñi génn ci ñun waaw ñi génn ci ñun man maa la ko wax waaw ba tax na nag bu ñu wax naan sëriñ si sëriñ si nañu wax sëriñ si ñu di di tax ñuy wax sëriñ yu nga xam ni ñi nekk ci état yabu ñu leen waaw xam nañu ñooy kan waaw ko defee ma defe ni nag maa koy wax maam Cheikh fekk benn militaire bu ma am comme wëllëre mu ni ma na ngeen def très attention yéen moustarchidine yi ma ne ko lu tax mu ne ma xam nga gendarme yi li leen merlo ak policier yi mooy li xewoon 16 février moom la ñu bëgg a fayu ba tey ma ne ko waaw kañ la woon 16 février du 94 94 ak léegi ñaata at la ñaata régime moo fi jaar waaw ñoom moo leen war a xamal ni fii am na yeneeni kilifa Il ñoom yi ñu yaakaar waaw ba kon ah buñ leen bàyyilee xel ñoom it nañ xel waaw réew ñun yërëm nañu ñi fi nekk coono bi ñu nekkee a opposition vite, li ñuy def defuñu ko pour seen bopp dañ koy def pour génération di

surtout Ahmed Aïdara waaw lii yëpp ay jaar-jaar la lu normal la waaw ñun ñii yëpp jaar nañ fi waaw man mii biñ ma dencee prison di wax ay trouble de l'ordre public ak yu gën xamul la tax ñu gaawantu génne ma mooy benn mag moo wax président bi ni ko xale bi ngeen tëj ni da ngeen ko tëj pour fukki weer fexe leen ba bu mu fi am fukki weer waaw ne bu fi amee fukki weer rek ngeen yàqu yaxeet waaw taxoon ñu gaawantu kërëb kërëb kërëb kërëb ni dañuy négocier pour ma génn yónnee ci Serigne Cheikh wax ko ko Serigne Cheikh yónnee ci man ci prison bi man ko génnuma waaw dafa ba bëgga dee daal ñi ñoo dëgër bopp rek waaw wax a wax a wax ma ne ko génn ma waaw comme fukki weer la ñu wax ah, ma ne ko nañ ma bàyyi ma jeexal sama fukki weer bu ma génnee jar ca digg ba waaw mu réew bu bëgga dee ni ma ñoom tëjuñu la ñi ñoo am lu ñu bëggoon mottali ci yow te boo nekkee ci biti doo ko man moo tax ñu dej ci ruq bi nga mottali loolu boo paree ñu soog a jublu ci fi ñu jëm ak yow waaw loolu moo tax sax ma mujj nangu génn waaw kon ñun ñi fii ñëpp jaar nañu foofu sëñ Cheikh Tijaan yi denc nañ ko ñaari yoon waaw ci fayda ja waaw fayda ja ndeysaan keroog bi ñu ko fekkee ci prison bi ni ko Senghor nee na dina waaw Senghor la rey mu ne ah kan di asukan duguna na asukan limu mu ciker ci kër Babacar si bu fekkee ni dom ju njilaan jur momay sacrifice man ma kon dina am leneen lu mu wax Babacar si waaw keroog ngi gis lettre am bobu musa gay diko ko waaw ñu def ko ay vidéo njaboot ji di ko partagé waaw lu tax na ko waxuñu fi pour xuloo mais dañuy rendre compte njaboot yi fekkeewul woon lu xew démb ñu wax leen ko tey pour ñoom ñu jël seeni responsabilité ñun ñu couvrir leen waaw noonu rek la demee bu ko defee ñu gërëm waa Yewwi Askan Wi fan yi passé yëpp ndeysaan dañ may booleeg lu mat ñaar fukki scooter ak juróom waaw pour di leen wax ni am na ñoom sëriñ sëriñ yu ñu utilise ci ci local yi léegi nag nañ may topp pour fu ma dugg ñu xam dinañ xam ban sëriñ la ñuy jëfanteel man dinaa ci mawdo li ma donne ci mawdo donne ci Serigne Babacar ma donne ci Serigne Babacar donne ci Seyid Cheikh li ma donne ci moom lu bokkul ak Omar parce que 16 16 février 4 heures du matin waaw. waaw dina lu ba noppi di seeti je pense bien que loolu ñaka xam lu xew la waaw tax na mat ñi li ñu doon liggéey yëpp mu ngi fi wa nañu dox ñun li ñu war a dox rek te jaar fi ñu war a jaar fexe ba li ñu bëgg a jaxase ak yi ñu bëgg a lànk ñu jël suñu responsabilité def ko face ba li ñu war a accordeel ñu accordeel ñu ko incha allah waaw bu ko defee rek ngeen bal ñu seen sax ma dugg ci domaine boobu ndax xam ni yéen it am na lu ngeen mérité mooy bu ngeen ñëwee toog fii ak li xew ca dëkk ba ñu wax lenn li pour encourager leen waaw loolu rek moo ci nekk farata waaw maa ngi ciy mere Moussa Gueye mii sax barki démb waaw ma ko lu muy wut RTS ba léegi waaw wallaay bàyyi leen loo fay wutati waaw man bu ma sañoon sama benn njaboot dootul dugg ci lu lu Macky Sall kon waaw yàlla xam na ko waaw kon nag yàlla mën na la jox lu ëpp RTS incha allah waaw beaucoup de defee rek noonu la demee xam nañ ci lu bari mais chaque chose en son temps ñu ngi encourager tout le monde sama m'a Barthélémy Diaz ah mu góorgóorlu لما كوماسي تبركلا وايت لو مل نونو موم لا خليفه سال كوماسي وون مانو نيوكو سيبورتي وا با ليپ لو نيو مانون ديف بور ياخ كو دنج كو ديف ماي كوم يالا جوغي وو في نك نان جابو جي يالا وا تا نيو نيو جابالنتي سونو بير تا تاخاوون تو جي سونو بير ان شاء الله waaw loolu laa ni woon rek ma wax ko ni man li ci jëm ci man mooy lii capitaine wax rek man li ma yëngal barewul yàlla xam na ko li ma yëngal barewul ndax góor gi dafa am lu ma yàq ba noppi waaw moo tax rekk di sant yàlla benn mbokk bu dëkk Mauritanie dafa ma yónnee benn audio ci audio bi mu wax ma ni ma dama gis sëriñ Cheikh ci gént mook sëriñ Babacar mu ni ñu ngi sol ay bot mu ni ma topp plage yi commencé ko ci plage bu Mbuur nee na plage par plage nee na ni ko nag waxal Moustapha ne ko lu ñu suuloon ci plage yi pour defar seen affaire ñoom ne ko mag sëñ Babacar solli nañ ko waaw bu ko defee kon nag loolu dal xel la kon nag ñu continuer sunu lutte te bàyyante xel rekk te li ngeen di tëral ñépp bañ ko xam wax naa ko cheikh yum mi ba tey waaw bu ko defee rek ku ñu xam foo jëm doo fa yegg waaw législative yaa ngi ñëw waaye bala ñu ciy wax ñu xaar ba suba ba xam Macron fu mu jëm waaw bu ñu xamee fu mu jëm ba noppi dinañu xam Sénégal lay xew ëllëg lan lay doon waaw ñu jël suñuy responsabilité à notre manière waaw bu ko defee kon nag moom sëriñ wax na leen ko bu defee ne damay xuloo sax xamoo lu xew waaw dama am benn compte rendu rek bu ma waroon joxe nii li Serigne Ndiaye wax ca kër jëmb lu toll noonu ci mbooloo bu toll noonu ci àll bu toll noonu ah ku ko yàlla dénk ku lay fontoo day xaru rekk waaw bu ko defee nañ taxaw nag def fayda suñu bopp xam naa am na ci ñu daan soow sox ku ne daa ah, waaw waaw ñoom gañewuñu tiwaawoon nangam nangam mais tiwaawoon mag ñi ci bàmmeel yi ñoo ko bloqué ñoo ma yónnee wax ma ni ma tiwaawoon bu leen ko jël léegi ndax dafa bari ñu ngeen séq

ci mbaaxu yàlla incha allah boo gisee sunu boroom lu tax suuratu tawba wutalu ko bismillahi rahmani rahim loolu moo tax parce que boo ci defee bismillahi rahmani rahim bi day am yërmande te am na ñoo xam ne ku leen bëgg écraser doo ca boole yërmande waaw moo tax ma mag ñi suratu tawba rek la ñuy xeexee waaw am na lu fi mag ñi bàyyi waaw bu ko defee kon nag yëf yaa ngoog daal seen arsenal de guerre sur le plan mystique mu ngi fi waaw kon yi nag def leen l'essentiel rek ñu nit ñu def l'essentiel waaw ci mbaaxu yàlla barke mag ñi ah, ñu ngi sant nag ñu fi jaar ñépp am naa capitaine wax na yàlla ak sagal njaboot sax moo tax ñuy ñëw ba fii ñoom soxna Fatima ñoom yaay soxna Umu Xayri soxna Adja moo tax bërkaati démb bi ñu toogee ñu téléphoné leen wax leen ni leen dindi nañu contrat wu arena bi ba gis ñu mel ni dañu am déception waaw man leen jaru ko jaru ko dem leen ngeen taxaw rek ñoom bés bi la bañ moo am bés bi dana am waaw te maam Cheikh wax na ko foofa ca parole am waaw amul tey hmm? Hmm. ñu sant yàlla njaboot yépp jaar fi ku nekk façon bi nga mëna a def nga ko waaye booy seetlu ni li nekk ci biti moo ëpp li nekk ci biir waaw ni man dama waxoon sax maam bu may ñëw ba damay dugg ci salle bi ma jaar ci biti pour gis ñi ci biti ba noppi waaw waaye weesu ndax yàlla ka rekk sagal njaboot waaw ah yi fi Fatima wax yépp nag ci seen programme ah, maam dana ca toog ak ñoom

barki dem la ko mujjé yoni mo and ak ñi mo andal ñu dem Casamance ci mbokk yu nga xamni ni miinu ma leen sax ñu dajalé seeni mbolo fofu mbolo ma paré na ñu ni dañu fenn te dal bu ñu am kilifa gis nañu sax ñu fa nekk bokk ci yenn tariqa yi waaye ñoom daal man maa leen doy pour nekk seen kilifa waaw ah ñu ñëw waxtaan ak man wax ma dafa am seen daje bu ñuy def ci mois de mais bëggoon man ci sama bopp maa fay dem waaye dafa fekk mu xat ci man ma ñaan Cheikh Tidiane Mbengue mi mu ànd ak ñoom Alpha Diop bu Mauritanie ñu dem teewal ma fa fa tabaarakallahu bi mu ñëwee jox na ma compte yu am solo ni ma ña gis foofa daal baye boo ñu taxawu leen waaw ndax waaw te ñu dogu lañu ma ne effectivement parce que ruq fofu, man xamna sen façon kon nak ñu jàppale leen dafay nek farata ma defé ni kon nak ñepp ngi buur jëm ci ci ñun waaw waxuma man sama personne mais ci lima bok ak yeen. ndax loolu rek moo fi des di yaakaar pour peuple bi waaw lu ko defee kon nag ah, am ngeen responsabilité waaw ndax dama gis ci bëccëg sama àdduna sa xaw na tukki waaw ay mag yu toog ci table war a débattre yu am solo ñuy saagante ci kaw table yi xoolal loolu ci Sénégal di saagante te ñu jëkkee saaga ya waa kër Macky Sall lañu diggante yu kenn xamul wax lu ne ma lii naka lay ànd ak réew mi mën a marché moo tax rek ñun ñëpp nañu jël sunu responsabilité te taxaw def face waaw tout le reste Waouh... Inch'Allah... Ah, comme dañuy Langue liste on verra bien taxaw leen ñu taxaw waaw la ci des mu nga loxo ni naru woon dugg ci cadre politique tellement que dama leen sip bu bëgguma dugg ci seen wax waaw waaye nag bu ngeen fii teewee ak li xew mënul ñàkk ñu wax ci waaw loolu rek moo tax waaw ni ñoom jaraluñ dara waaw jaraluñ ñu dara bi ko des itam mooy ñiy sol tenue yi ñoom it benn fayda da ko ñu xarloo réew benn nit rek di la manipuler nga defe ne yaa ci nekk yori ay jet ñu naan jet blindé mais ñun yooyu du suñu problème yooyu du suñu problème renverser le tout mook naan ci ndox mi la ñu yemale waaw waaw ba tax ne kon waxtu bee jotagul rek

Mansour mi ci xuloo la dëkk bi su ne bi waaw sunu jigéenu bopp soxna su kan jonn dafa am empêchement moo tax mu tàggoo pour dem soxna su ko tuddee waaw mu ni ma sama papa moo yoroon daayira Serigne Cheikh bu poste

ni ñuy assister ñu ni dinañ leen assister nu ni toll incha allah waaw noonu rek la demee sunu mbokk Pape Djibril Fall dafa am ngànt nee na bëggoon na teew mais dafa war a jëm ci voyage Oustaz Modou Fall la même chose dafa am ci programme buñ ko yebal moo tax ni mu bëgg woon a teew teewu ko am na ci ñu dul jeex ñoo xam ni ñoom ñëpp ñoog ñun ñoo bokk lu ñuy xalaat waaw moo tax na kon nag yal na yàlla mottali te yàlla yokk sutura yi te yàlla def tawfiq waaw eh, loolu rekk la weesuwu ko waaw ñu gërëm ñi nga xam ni yëpp sponsor yi ci ñoom la ko ñoom soxna Fatima jaarale waaw gërëm itam peeru dayre yi ak meeru dayre yi gërëm itam tous les responsables du mouvement gërëm itam tous les responsables du parti en particulier Cheikh Ahmed Tidiane Youm wa tabarakallahu soxna Aïda Mbodj bi ca sunu meeting bi woon fii nee ma ku la mat ndaw la wa tabarakallahu kon nag sant yàlla waaw kon nag ñu ngi tëj foofu ah la ca des ñu topp ko rekk xeyna daje yi man na am du yam fi amna yenen yu nek ci kanam buñu ci yeggé rek ci baxu yàlla inshallah mais dañuy bàyyi xel sunu bop rek waaw dañuy bàyyi xel sunu bop rek wax naa ko mam cheikh bi capitaine waaw dafa am ño xamni ku séq ak ñom da ngay bàyyi xel sa bop waaw te jamono bu nekk waaw fii ba 2024 bu benn njaboot ñàkkal faydali xew na ñëpp di takku ñëpp di pare seen bopp waaw on sait jamais waaw bu ko defee rek kon hmm, yàlla ngi baax ba tey waaw sama mbokk ma nag invité woon naa ko waaye neena dafa am dëj ci diggante bi mooy xaaj Mansour Sarr ni waxoon na ba ni dina ñëw ba yóbbante Pape Cheikh pour mu wax ma ko en dernière minute mu yóbbante seen imaamu raatib bu dëkk moo faatu te comme moo ko war taxawu moo tax loolu du mën ñëw waaw ah. waaye rekk bis nga ci ëllëg waaw kon daal capitaine ah ñu bàyyi boog nga joxe ñaan wi seen gan ñi ak ah, bu ñu jógee ba ñu may leen ñu génn ba noppi ñun ñu soog a jóg N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.